niveau bi ak xam-xam bi duma ma toogate sa dinaan nga ne mane ne ci live damay nekk beneen level ñu may xool feneen fa laa mais pas ñoom li ñu rêvé boo ko seetloo bëgg a ak bëgg a xew dina leen dugal ci ku siw rek ñu tàppaas la xuloog yow indi la lu ñaaw pour damm la mën faa toog xàccoowuma loolu damay jaar TikTok pour faj benn soxla dama koy bàyyi du pour man. Hmm. mais nak bala ma bay kuma bëgg yeb na tégal sa lu bon ba paré ba ñëpp xamné ne la mën ma jéggi la dem sëñ Abdoulaye Lahat né na ku ñak mëna a mo gën mais ku dugg ci xeex jékalé hmm way ci bëti du ben fañuy xol du ben rêve yi du ben dox qualité yi sa ñoo dul benn su jabar daf ma wootee mu ne ma dimbalé ma ngir yalla bul di sa bop ak ñi mané ko dafa fekk ne ku fekki mbaam poox ci potoxa di xeex ak ñoom faaw nga takk ban te boo fa yàggee sax noonu bu ñëwee na la yàgg mbaam pooxee yam ndax yéen a ngi xeex xoolal am na ko inscrire juste pour mën a commander dégg <laughs> bëri fitna la doo xam nga ko mooy suñu waay <laughs> la saaga woon ne <laughs> maanaam <laughs> ko moom man a dafa bëgg a écarter di di pëtëxlu <laughs> sëñ bi bi ku jug na àndalaa mbir mi xew fan yi ko wax mu ne andala andala mais andala lu muy jëriñ andala day dolli kàttan mhm. andala day tax nga mën a gérer dëgër këj gérer une heure de temps deux heures de temps xam nga andala mhm. bu garabu cosaan la boo xam ne ci ay meññet ak ren leen ko jëlee defar mhm. dafay génnee stress maanaam lu la mënti naqari boo guuxee àndalaa tëdd la boo fàtte dafay dagg sinusite ci bu ci bakkan boo ko naanee sa bakkan bi day tàng dafay raxas biir génnee doxati génnee ngelaw li génnee ngelawal yi war naa koo naan ba pare dafay raxas deret génnee suukar si muy jabet génnee xorom si muy hypertension dafay yee ay siddiit ba pare di génnee coono coono mën na rey doomu aadama mhm. ba pare ñetti façon gaawa daanu moo am wala néew kattan. Mhm, ak emurid da koy faj. kudul gaaw a ko dal. Mhm. koo xam ne bu ko dalee du dëgër koo xam ne bu ko dalee dina dëgër waaye fu bopp koy bu tooyee mu daan. Mhm. hémorroïde ñaar la interne ak externe externe ci muuti gi lay génnee ngay dem toile léegi-léegi di ko buux muy dugg interne bi ci biir lay nekk ci góor la gën a bon. moom bii rek lay faj. amul solo ak régu li muy def léegi nag àndalaaburi bii bi mu ñëwee hmm. leen garab ci réew mi déggatoo leen bëgg la ba koy publicité dafa dag naan moo gën àndalaa faaw nga tudd àndalaa hmm. léegi nag sëriñ si nekkoon ci ginnaaw di jaay garab ma ñëw suul leen dañuy seeti ay doomi xaraam ne yàq leen àndalaa ndax ñu mën a jaay moo tax ngay gis tey nit am problème ak Cheikh Ahmed Cissé bàyyi Cheikh Ahmed dem attaqué àndalaa ku am xel di nga xam lan moo tax ci di attaqué àndalaa buri ñaareel ba amul métier ñetteel ba am na ku nekk ci ruux pour àndalaa daanu mu mën a jug hmm. waaye nag yàlla daf ma dimbali lu mu gàtt-gàtt am naa junne client bi ma commencé ba tey Sénégal bi may jaay ba tey xam nga war naa am mille clients hmm. ok léegi vingt cinq mille francs fois mille loolu vingt cinq millions su fekkee ne loolu laa jaay ci at mi weer bu dee dinaa am deux millions quatre-vingt-trois mille loolu du salaire. ah ëpp na salaire sax kay. waaw dama la bëgg a wan rek chiffre d'argent maanaam lu mu gàtt gàtt xel mën naa nangu ne. Hmm. bi ma commencé jaay àndalaa buri ba tey junney nit war nañoo mën a jënd suma garab confirmé ne baax na junney nit. Hmm. Hmm. xam nga ëpp na ko. vingt cinq mille fois mille vingt cinq millions. vingt millions boo ko divisé par douze. 2 millions 83 mille chaque semaine la doy na ko moo tax duñ ma fay nama waxal duñ ma fay na ma noppi kenn gàdduwut ma itamit nag ku ma séqal teranga bu ma sa loxo xam nga suma loxo ngay xarit ngay mbokk ngay jabar ngay doom la waa léegi bu fekkee ne am 2000 personnes xam nga ñaata la 50 millions 3000 personnes 75 millions 4000 personnes yu jënd suma garab ci année bi def na chiffre d'affaires 100 millions waxuma lool lay am de mhm. li may am yalla ko xam sa yu mako ko ma gërëm damay lay wax chiffre d'argent. argent mhm. bu dee 4000 nit jënd nañ suma garab ci weer bi ci at bi at la la wax waxuma la weer de mhm. atam lëm ma jaay 4000 sénégalais def na chiffre d'affaires 100 millions batay newuma amna alal de newuma lol la am dama lay wax chiffre d'affaires hmm lol boko multiplier par 12 wer bu jot nga am 4 millions wer bu jot di nga am 4 millions francs CFA legui 4 millions boko diviser par 30 jours chaque jour 133000 francs ngay am wa doit gor hmm bu goré chaque jour cent mille francs hmm. doy na gor de waaw bu goree waa loolu boo ko amee te am ñuy liggéey am rigueur am fayda xam li ñuy def doo biram bu muy dox ah, waaw waaw moo tax ma lemlante su may loxo na leen oh ñu ne waa ma ne Amérique fii jaayatuma ñu ne ma looy def ma ne leen biram bu muy dox dugg du muy dox tëdd muy dox mais gis nga moment boobu may def loolu ma ngay jàng di waajal màggal gi ak gàmm gi wax ci yonantoog sëñ bamba lu nopp mësta dégg moment boobu maa ngi jàng e di pour dem université jàngi parce que tiktok du liggéey réseaux sociaux du liggéey nit day màgg taa day jeex ku xew di nga xew ana Souleymane Zil Diop mañ daan déglu ko déggati déedéet Kouthia mañ doon déglu ko déggati déedéet tey Cheikh Ahmed moo fi nekk moom la fi yàlla teg mhm. bés dana ñëw kenn dootut ma dégg ñi naan aka amoon xam-xam ñi naan aka reewoon ñi naan da mooy ñi naan moom a dimbale ku ne ak sa opinion. Mhm. mais plan de vie da koy te ci loo ko wut lu mooy xam-xam ak xaalis rek perte ko. nii lay xalaatee. man nii lay doxee. yàpp xalaat yi ñoo dul benn. Mhm. si bu loolu weesoo. Uh-huh. ku ne àndalaa am na riigu. am na uh-huh. soq am na doywaar waar. gars yi buñ koy confondre ñoom ñi ciy wax nañ jéem a xam bu ci nekk li muy doon comme ça bu ñuy bu ñuy wax ñuy leeral gars yi di xam ku ci nekk ban nga war a jënd. Hmm? na ci baax de. Ah. non su fekkee ne. <coughs> su fekkee ne. den doon wax rek te yàlla tax mais den leen fay jaaykati garab yi ñoo leen fay àndalaam moo tax kenn jaayatul foog nga comprendre stratégie de communication maanaam tey nit ku normal. Mhm. boo jotee nit moom nga jotee. Mhm. mais di nga tudd business bi te jaayoo. Mhm. lan moo nekk sa ginnaaw lan moo la motiver. loolu lu jar a laajte la. mën nañoo génn foofu dem ca dem ci tamxarit gi. Mhm. tey nga tamxarit. sëñ bi man bëgg naa xam lan moom mooy tamxarit lu waral tamxarit fu mu jógee aada cosaan la diine la lan mooy baax baax yi hmm? lan mooy ngëneel yi bu dee am na ci. <coughs> ba xam obligation la wala du obligation taajaboon gi ci biir. lépp daal tey bëgg naa ko xam quoi. xam nga fukki fan mooy ashr ashura ñu ngi tibbee baat bi ci fukkeelu fanu weeru muharram muharram weer la ci weeru jullit ñi mooy weer wi njëkk fukkeelu fan bi mooy yawmu ashura mooy fukkeeli fan noonu la tudd olof tuddee ko tamxarit mhm. léegi dafa am nag ay mbir yu ci xew ba tax mu am solo ci ñun gis nga maa ngi doon wax ma alquran dafa am aaya yu am aaya yu leen folli farata la woon ci bépp julit mu woor mu woor bisu tam xarit ba bi weeru koor wàccee ci leen ko mu am ngëneel lo xam ne bisu tam xarit dafa tolloo nga woor atu yàlla joxe mbaax ci bisu tam xarit dafa tombe nga def mbaax ci at bi yépp kon moo tax muy hadis bu wér ak sunnatu muhammadiya ne neen di woor bisu tamxarit waaye xam nga lan moo gën a yéeme ci tamxarit muy lan ci la yàlla musaloon banni la ci firaana mu réew mu mag mi keroog la yàlla xottiloo yonentu yàlla Muusaa géej gi fukki mbedd ak ñaar mu jaar ci mucc firaw na xala ko ba yow ma ba bés bi firaw na dafa torox kérok la yalla may bani israël ndam lu reuy loolu ginnaw ñeen fukki ati coow wala ñeenti téméré at wala ñeenti junne at Musa son firaw na rew ba bew na inni na rabbukum ala man dal deug deug may yalla ji gëna kawé man man firaw yalla jëree du dara man may dara fala réewaa ngeen tollon yonent yalla musa bisu la amon ndam lu hmm xam nga ak lan ak lan ñun ñëpp ñu ngi waat ci yonent yalla no ci maawu tufan ñeen fukki fan la yalla ji doon taw kaw ak suuf inondation 6 mois nit ñëpp dee mala yëpp dee ba mu dess ñu nekkon ci gal ak no gi gal gi mu ngi teer yow mu onze asura bi ci tam xaral la gal gi teer jaan génn seeg jaan jaani jurante ba fi goor ak jigen genn seyante ba fi janax ak janax mbott ak mbott ku gëmutoon yalla ci animo nga yalla créé dara ginaaw lu lepp ci gal gi ta kenn matul sa alquran moo ko wax loolu boo ko waxee am jàmm benn ñaan la xam nga lan la salaamun ala nooyin fil alamina inna kazalika najzil muhsinina alquran la ku ko wax mucc boo nekkoon ci biiri jaan ne salaamun ala nooyin fil alamina inna kazalika najzil muhsinina dara du la laal xaj du la màtt alquran la yàlla ko wax ndax noo dafa woote ne ku gëm yàlla ñëwal rek segg yi di ñëw gaynde yi di ñëw mu tiit jàkkaarloog borom mu ne ko salaamun ala nooy fil aalamiina inna kadhalika najsil muhsinina mu ne ko jàmm ci noo ci mboolem lu ma bind jàmm rek nga ku ko jàng am jàmm ci mbindeefu yàlla yi alquran la xam nga ndam loolu noonu yonentu yàlla noo am. mais booy wax alquran ni nga koy waxee muy neex. waaw dafa neex suma biir xol bi dama koo xam. mbës kuy wax mooy manam ku xam mooy wax li mu xam. maanaam da ngay da ngay wax ay baatu alquran mu mel ni dama koo xam. mu muy dugg. waa xol bi la manam suñ xol yee connecté xam nga yow defaruma la ci di la jàngal dama lay defar ci mbëggeel da may bëgg ma lay bëgg ma lay yéegal da ngay togom yàgg rek nit tooñ la nga xam ne mën nga koo muñ nga togom yàgg rek am soxla affaire yi ñëw loolu la ñu doyee sëriñ moo tax su may wax xam-xam damay wax rek mu mel xamoon nga ko mm-hmm. fekk amour bi defar naa ko organiser ko ba amatoo sago léegi bu may wax rek da ngay capté c'est ça <laughs> c'est ça l'amour quand même tu vois donc. mais ñaan gi waxat ko waxatal ñaan gi te baaral ko. salaamun ala nu'in fil xaalamiina inaka zalika najisul muslim tub kii raasule yalaay. salaamun. salaamun. ala nuh ala nuh fil aalamiina. fil aalamiina. inna. inna. كذلك كذلك نجزل نجزل محسنين محسنين ليه وهي الاخرى هاي لي دي على هاي ايه ما في يلا بتشاهنده ديد ابدا لي لي تي خول لي دغو مي ما هذا لي لا لا مو جاخلون جماي بن بالي ma ne ko moo jaaxaloon jomaay bi mu génneeg bale gi. waaw yaa woon fu baax. loolu laa la wax ne. Mm-hmm. bokk na ci li tax bés bi rëy. Mm-hmm. am sol mm-hmm. suma ordinateur lu muy def nii. moom luy problème am dem na de maa ko gën a ëpp jot bokk na ci li tax bis bi rey mooy yenent yàlla noo samaam suñu maam mm-hmm. keroog la wàcc ci gaal gi ginnaaw ñeent fukki fan taw kaw ak suuf ndox a ngi jug ci suuf di ñëw ci kaw mm-hmm. juróom benn weer la àdduna bi yëpp indoon ne ku duggul ci gaal gi rek yàlla dalaa raatal ma dugalal la ñaan goo xam ne boo ko waxee mucc mm-hmm. xam nga leneen ni lan lan mooy lan xareeb Karbala xare Karbala Karbala bañ reyewoon sëti yonent yàlla Muhammad bu sallallahu alayhi ca Iraq bi si tamxarit la tey boo demee Iraq dañuy jël jaasi di dagg seen bopp ba nàcc ngir fàttale ko Ousseyni wala Hassan hmm. waaye ci xisa bu wér sëtu yonent la sallallahu alayhi wa sallam Aliou Baye ndey la Ousseyni la wala Hassan xam-xam da cee wuti waaye li wér te door daanu mooy sëtu yonent la gis nga beneen bi mooy soo joxee dërëm ci yow mu asura hmm. at bi yëpp yàlla day bind bët bu set na joxe nga dërëm bu set joxe nga dërëm ba at bi jeex allahu akbar ah loolu cuq na di maanaam tey nii rek nga wax benn laa ilaha illa allah hmm. bu set ñu bind la laa ilaha illa nga woor bët bu set ñu bindal la woor te woor bés bi daf lay jéggal bàkkaaru at li nga kaa li nga fen li nga njaalo li nga def yëpp yàlla da koy dajale ne ma bàkkaar la woon ñu ne waaw ku ko war a togg nit ñu ne ko yow yàlla mu ne baal naa ko ah. du ko laaj pourquoi kenn du ko yàlla mu demee nii sequt ko yàlla bind kenn du ne ko lu tax déedéet sequt ko kenn dégg nga. kon li ma la wax yeb njëriñ la ci bisu xare borom xam xami nak wax du alquran du sunna wala xaw ko ci sunna ñu ne bes bi la yalla di bind liste bi wara de ñi wara febar ñi wara ñi wara dem kasso ñum ñep bes bi la yalla di dogal ba pare jox liste bi malaika ay mës bo nekkee ci liste bi nomba ma ne liste bi war a dee boo ci jiitoo dina ma métti de. déedéet déedéet déedéet déedéet li ngay kafe nii bu ko waxaat moo lay dégg daa bëri jikko de. maanaam malaaka bi jot liste bi tey ñu ne mbër suba suba nga war a wuy ji sa borom nga gis ko fi miste fii laay toog. nan aka baxon te mën ta woyof cheikh may sise mu ne dafa am ben dëj bu mu demoon hmm. benn waay bëgg wax ñu ne kenn du wax mu ne may leen ko mu wax waji ji forcé ba wax ne ku bax la woon hmm. buñ daan bulooti wala mandi ji moo daan ep ci scooter mu ne ci la xam lutax ne bu bam bokk ñane mu ko xol bu woyof la yor te niw baa ngi ñu war ko ma ko te niw baa ngi ko kon mën nañ ni tam xarit ci diina ji la du du du du du du du cosaan mais daa bokk ci alquran waaw ndax bés la bu yàlla fonk ba def maanaam ci la yàlla di wanteer mbaaxam wooral mayel benn dërëm ma def ko junnee dërëm yonent yàlla Moussa yonent yàlla noo am ca ndam surtout yonentu ñu toroxal ko ci ko ci maanaam bis bu dajale naqar la ak mbégte moo tax taajabu waaruwu leen olof ne taajaboon óolle mooy ndax waaruwu leen yéemuwu leen mm-hmm. ci bés boo xam ne am ngeen ci ndam waaye am ngeen ci naqar ndax sittu rasulillahi ci leen leen rek waaye danga war a jooy wala danga war a yéem loo war a ne taajabun li dee yéeme ñu jël ko na taasu ko taajabun ñaari maa la gaaw ci ndax yéemuwuloo ñu naan taajabun ole taajabun yéemuwoo nga ne naa mais bi ci askanu ngéwél gi ñëwee ba tef ci tama bam <laughs> mu nekk ni bugguma sax ku ma naan taajabun ma yéemu ni xalal ma nafsee bi rek fecc moom <laughs> mais mais cosaan boobu ñu ci indi ci biir taajaboon bi ku jigéen góor ki di sol yëre jigéen ku jigéen ki di sol yëre góor yecce ak yeccey am yépp dem ci kër gi fecc ñu may la ñu jox la yooyu noonu yëpp kon aada den ko fi fekkoon mu doonoon aada ci ñun balaa diine lislaam mu doonoon lu rafet pour góor ñi xam ne mhm. dañoo war a yërëm jigéen ñi ndax buñ toogoon place yi jigéen di ëmb di gis régal dana métti lool jigéen ñi xam ne place góor dafa diis joxe dépasse gàddu kër lu métti ñu daw ci yow te yaa ëpp métti ñëpp nga nuru nuru lu góor ma nuru nuru lu jigéen ñuy feccalante di wéyalante initiative bu rafet bii leen ci amoon ñun suñ aada bu bés bi jotee jeexee góor nekk góor jigéen nekk jigéen ñu dem nag ba diine lislaam ñëw ñi ñu indil diine bàyyi ñu aada bi waaye diine nanguwul góor guy jigéen jigéen lu nanguwul jigéen juy góor góorlu diine daf ko bañ ci lu mën a doon lu dut ñu di la wër ne buñ la jàppeeree la nga solo mbubb jigen ngir mën muccélé sa bakkan l'islam may na la ndax hmm. l'islam dafa sew hmm. des koy xam pour mën ci wax tay buñ non mbeus lañuy xaar fi bu ñëwé ñu ray ko solal sa coquette yu bax def sa hmm wàccee sa nan salam alaykum na ngeen dem tonton ba mucc du doonaat goor am problème yalla yàlla jëfewul <laughs> yàlla méttilul ko daal. lii nii moo doon taajabun. taajabun. waa ñu ñëw ci suñu waxtaan. aadala buñ yàgg di def waaye du sunnatu rasulillahi te wérul ci alxuraan. ne góor ñi neen jigéen jigéen lu jigéen ñi neen góor góorlu loolu wérul amul fenn waaye nag suñ aada woon bi foofu. macha allah. lii mooy tontu bi ci loolu. Hmm? këppatal këppatal. luy këppatal. këppatal mooy bu ñu lekkee cere ji ba pare ba ca ëllëg sa ca fajar ga. Hmm. ñu jël bool bi ñu ko lekke woon di ko dëpp ñu ne dañu ci fës ñaan suñu soxla. waa loolu aada séeréer la woon ñoo ko moomoon ci leen daan ñaan nawet ñaan ci jàmm parce que balaa ñuy jaamu yàlla yàllaay maam ñi ñoo fi nekkoon.